suñu deuxième sortie bi luko sabab moy maire bi dañoo gis ci journal turbine muy né maire bi di né mom héritage la fek problème souf ci de koo mom xamu ci dara té maire bi avant ñuy def dara fexé nañu rencontrer ko mu ñew bu ñu wara tok ak mu ñu commission domaniale bi ñun nag pour ñu baña dem nonu nonu ñu tok waxtaan ak ñooñu yemuñu fa mais dem nañu ba ci sous préfet bu Tog mbadan tok ak mom ak maire bi maire bi ñu waxtaan ba am consensus mooy lan dañuy jéem moom day jéem a fexe contacter la préfet de Mbour pour mu mën a convoquer Babacar ñu toog waxtaan parce que même guerre bu amee itam ci table de négociation la ñuy mujje ñu d'accord amuñu problème mais n'empêche fa la ñuy fekk béykat yi ci seen tool yi di leen di intimider di leen di jàpp di indi brigade bu mbuur di def lu nekk c'est pareil que nee nañu yeey Babacar Ngom doomam bu jigeen jàkkëram bi colonel la moom mooy euh, orchestré loolu yëpp ñun nag lijjanti wuñu colonel la wala leneen la ñun suñu suuf la ñu soxla maire bi nak il est irresponsable parce que yow mënoo nek ci ben localité nga soxla ñew campagne leen ñu fan la ba paré ñu am problème nga wara taxaw di né héritage la man xawma ci dara man je pense très bien que il est impliqué. lii nii duñ ci ñi tank fuñ ko tek dañu continuer continuer combat bi jusqu'au bout. ta amuñu nak temps buñuy ñuy perte li ci état bi di def naka def mu gaaw parce que fofu lu ne man na fa xew ta amul ben responsabilité buñ ciy dégager wala buñ ciy daw limay wax dafa dama bëgg mu lèr bu féké ne Macky Sall mo def lolu décret bobu féké né ne moko moo souf décrété wor nañu haute trahison la parce que le 29 septembre 2011 bañ ko fay xaar ba minuit promesse bu mu ñu fa joxone waxu ñu won bu ngeen bu ngeen ma falé dina jël sen souf jëli fele benn waay ñëw jox ko ko mu ko utiliser yéen ngeen taxawaalu ji. Babacar Ngom bu buggee jàmm nag laa koy waxal na bàyyi suñu suuf balaa lu ko warul dal di ko dal ñun ay séeréer lañ duñu tooñ kenn waaye ku ñu tooñ di nga ko gis te am na li ñu yàlla may dama koy répété waat une fois yaa ngi gis suuf soosu mën naa ko kitaabal ci yàlla ci micro bu may wax yow nii. Babacar Ngom du ko jëriñoo ak lu mu mën a yaakaar ci àdduna du ko jëriñoo. il faut ñu marche parce que amuñu pexe. marche bi c'est obligatoire ay nit bu ñu amee lu leen naqari il faut ñu manifester ko wone ko. ci fan yi ñëw incha allah.